nuyu naa leen maa leen di gërëm di leen sant seen commentaire yëpp yi ngeen wax dëgg la parce que ni xale boo nekkee xale war nga xalaat buñ lay aayee dara wala ñu la ko tere sa say waajur buñ lay tere yenn yi da foog ne ñàkk fayda la soo ko deful da nga ñàkk fayda waaye bés boo ko paasee buñ la ko tegalaatee di ko rëcc te xam naa ne Marème li ko dal loolu rek loolu moo ko loolu moo ko yóbbee li ko dal ndax moom bu démb doon tey fi mu jaar ne du fa jaar ndax xamul woon ne dëggay mujj danga foofoon ne rek te lim nekkoon rek mooy lu neex noonu lay continuer waaye bi mu doogee ba génn ca nag bëgg a dugg ci dëgg réccu na ko waaw yàqal na ko àddina am yàqal ko séyam xam naa ne jëkkëram moom bëgg na ko jaral na ko lu ne mu jëkkër ji moom daf ko bëgg même bu bañ même bu ko bu ko bu ko kiiwee tax même bu ko yaay ji génnee jëkkër ji moom ànd ci jëkkër ji moom bëgg na ko bëggeel goo xam ne gi lum ci gis rek bëgg na boole boole na yépp waaw waaye kii nag laal nag deful dara Mariam daf ko sonal rek xam naa su ko sonalu doon lii yëpp du ko si def ak xaritam boobu moom it xarit bee ko ci dugal ndax moom bañ na ba sonn xarit bi ne ko ko waaye mujjee naa réccu bay jooy moom itam moom kay mu ngi noonu rek série bi nag moom xaw ma série bi nag moom kii rek laa ci yërëm man jalika tartaga jalika moom kenn gënu koo dund coono ndax séy bi neexul woon séy ba bam tasee a ah, taxul mu am jàmm di dégg yu ko naqari di ko gis ba sonn ci waaye nag noon la moom affaire yi noonu la rek léeg day neex léeg mu naqari di tourner série yi yëpp noonu lay demee waaye nag kontaan nañ ci nag série bi moom kontaan nañ ci trop man maa ngi doon faral laal la waaye mujj gi dem naa ba ba ba yërëm mareem nag na dafa ëppoon ay loxoom leen ko dal daf koo ëpp doole looloo tax jërë ngeen jëf maa leen di gërëm di leen sant. wàllu xew TV ñu ngi leen di leen siyaar di leen baalaax te di leen baalaax ñaan yàlla sama kàddu mu fekk leen ci jàmm. waaw di leen wax ni épisode yi fi jaar yëpp moom neex nañ moom kaar macha allah maîtrise ma mari moom wax dëgg yàlla neex na surtout bu cinquante bi ni mujj dugal nii moom boobu moom neex na lool xam naa saison bii di ñëwaat moom raakal naa ni moom mooy dàq waaw neex na trop macha allah. waaw asalaamaaleykum maanaam maîtresse mariée maa ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp. di jéggalu gëj a rek jot rek waaw mais ñu ngi koy bu baax a baax ah série bi moom neex na torop torop torop macha allah yéen si yeete bu baax a baax a baax a baax ñu ngi siy jàngat lu baax a baax lu am solo ngeen di joué yi fu dëgg yàlla waaw mu ngi noonu donc euh, liñ ci jàngat daal bari na daal yaa xamte bi bari na ah di jëru yenn yi ah xarit du tas ah. feebar gu ñëw te tamit noonu donk daal lu dañ ci jële daal bari na daal noonu mais ñun yaay seex dañu bëgg xam daal yaay seex daal moom hmm, moom lan la lan la ko bi lan lañ ci war a mën a jàngat xaw ma daal nuñ koy waxtee parce que ñun suñu maire yi nekk foofu melu meluñu nii daal xam nga am ñu si am yërmande bëgg nañ seeni goro supporté nañ yëpp ñëpp ay yaayi seex lañu mais maire bi daal li mu def moom ñaaw na trop trop trop ku ko man sa ngurus ka fa dëgg yàlla jël nit ñi xanaa xaj sax bu doon xaj sax doo ko def nii sax ah eh, toroxal ka nii nii daal lii daal na jaaduwul daal man loolu rek moom xaw a metti si eh, si série bi maa ngi jéggal nag si yéex a dugg bi parce que fii guddi na bismillah bu ba ba suba jàmm incha allah. salaam salaam Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu. bëgg leen bu baax bëggoon a joxe sama avis ci maîtresse waa mu nekk série bu ñuy suivre première chose bi may njëkk a joxe moom damay dem ci Lalla Lalla man pour man wujje jarul lii parce que am nga wujju rek jarul amee ay feebaru dépression waxatuma loolu loo xam nga sa wujju ci lu ñaaw daal wol koo siiwal pour man wujje jarul loolu pour man daal wujje bokk wërsëg la ci ko nga xam ne yéen a bokk benn jëkkër a ah, pour man jaru ko woon daal wujje tollul fii ko ñoom dañuy yeete rek mais comme si peut am na ñu koy dund ñu xool foofu rek parce que moom commencé na regretté mu ngi wér di jooy yooyu noonu te demagul fenn beneen bi mareem Marème franchement dama ko yërëm sax xam naa peut-être dafa toppoon affaire de jeunesse affaire de tollu naa ci dama koy def yooyu noonu dem ba mu commencé yàq viom comme si am na fi ah comme si xale jigéen ñi rek ñu xool foofu mu xaw leen a yee tuuti parce que boo nee naa ci dama koy def bëgg topp affaire de jeunesse de trop tamit. mën ngaa def loo nga xam ni mën ngaa foog ni daal weesu nga loolu yaa ngi dund leneen mu yàqal sa vie tamit waa série bi nag moom am na important man peut-être aw ma temps pour di ko suivre euh, lundi vendredi ci télé bi mais bu ma ko ratee sax dama koy xool ci YouTube bi mais dañuy yete daal comme si peut-être lañuy wax noonu am na fii Sénégal ñu xool ci loolu rek tamit parce que pour man nit war ngaa dox sa jeunesse tamit te yenn yi tamit di ci bokk mais laal aussi moom li mu def nii moom wujje jarul loolu aussi ñeneen ñi teg wujje fu sori fi tamit ñu xool foofu waaye série bi daal première première saison bi daal am na important ñu ngi xaar deuxième bi incha allah merci yéen tamit waa Lu Xew TV. Allez merci maa ngi nuyu mbokku julli gi nga xam ne ñoom laa fekk si kër gi waaw di bëggoon wax ci série bi nga xam ne ne mooy cinquante épisodes mi nga xam ne moom mooy doog a jeex waaw mu doon épisode boo xam ne bu daw yaram bu daw yaram bu daw yaram kaa yoo xam ne ne wax dëgg yàlla yu daw yaram comme ni nga wax fii presque kenn ku ci ne dootoo wax ni Marème mooy sa artiste wala Lalla wala et tout mun na la ni cinquante épisode bi ñoom ñëpp kenn ku si gis nga ci loo xam ne ni kenn ku si ne rôle bu mu fa wane dëgg sentir nga ni yërmande am na fa wala moom mënuma wax saa mënuma wax wax dëgg yàlla man ku ci mel ni kaawu Jalika dafa mel na ni man maa ko doon joué et dama toog di jooy nga imagine nga nekk yaay xëy un beau jour nga nekkoon ci ay métit xëy commencé beneen nouvelle vie bu neex nga xëyaat ñu annoncé la yenn maladie yoo xam ne nii mooy loolu et nga nara di ci yaakaar ay deew yooyu xëy nara bàyyi njaboot ginnaaw kaa bu métti bu métti kaawu Marème tamit même chose dund na lu metti lu métti nga ñëw tey ba am bonheur ci sa biir néegu sëy commencé yenn difficulté di la arrivé nga xëy nga ne benn barage bu tuuti moo mën a defaraat mariage bi muy doom nga xëy ñu annoncé la ne munoo am doom nekk na lu metti loo xam ne nii mooy loolu am saar et ndeysaan xëy na mbëggeel si nit dina la tromper nga di ko def wan ko yenn yoo xam ne ne ëllëg mu ngi yàq benn barrage boo xam ne ne xamoo lu muy juri ëllëg daal Irak yi même chose no film bi ku ne ku ne booy wax daal rôle bu nga xam ne ni def na ko ci moom vraiment daal nekk na film boo xam ne ni dernier épisode boo xam ne ni bu bàyyi trace bu bàyyi trace wax dëgg yàlla mu doon ay message yoo xam ne yu marke doomu aadama yu triste yu marqué doomu aadama yi franchement dëgg yàlla message la daal bu ñu bàyyee message la bu ñu bàyyee ñiy xalaat ñiy xool daal deuxième saison bi nan lay mel daal mais ñu ngi eh, wax waa Marodi TV non xool yi ñoo fees di leen encouragé ne leen fi ngeen teg seen tànk foofu la vraiment ndaxte yéen ngi def loo xam ne ñu ngi yeete daal franchement ñu ngi yeete rawatina ñun nga xam ne ne ñun sénégalais yi nga xam ne ne nekkuñu Sénégal nekk si yeneen réewu jàmm di ko seetaan di di dundaal Sénégal franchement wax dëgg yàlla kontaan nañ si yéen kontaan nañ si yéen vraiment vraiment di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci série bi yëpp di leen wax ne tamit def ngeen maanaam rôle yu nice <laughs> yoo xam ne ni wax dëgg yàlla lancé ngeen nit ñi ay message yoo xam ne ni dinañ ci mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax wasalaam asalaamaaleykum waa Lu Xew TV waa ni ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp di leen wax ne série bu macha allah na Maîtresse d'un homme marié moom wax dëgg yàlla ñëpp koy seetaan ñëpp koy bàyyi xel waaw neex na torop dem ba tey maa bëgg a dugg def sama commentaire waaye damaa ñàkk temps torop looloo tax waaye léegi rek ma si nekk ci série bi fi mu jeexee mooy délicat ma bëggoon nag fin bi a muñ la deuxième bi mooy Marème moom sama fant la Marème moom dama koy bëggee naan ku fawee sa ndaw sa mag la mooy lii mooy jigéen bu ne tool ci digg ndawam na sóoraale lii daal ndax tamit jamono ji dafa yàqu te téléphone yi lu nekk mën nañ ko see dem mën nañ ci yàqu sax bi yëpp kon nag nit ñi nañ ci bàyyi xel te boo nekkee si digg ndaw amagoo jëkkër ah xamal bu baax fi ngay teg sa tànk ndax àdduna moom chaque jour ay jàng la jàng ba su da ngay jàng daal kon nag yal nañu yàlla defar rek ah mujj bu rafet waaye daal lu waaye di def na bàyyi xel bu baax te xam ne yàgg yàgg mag day ñëw te yàgg yàgg. ñaan nga yàlla am sa jëkkër ba nekk nekk sa place daal nekk sa sa foyer de géré te boobaa tam ko benn image bu ñaaw bu yàq sa diggante sa famille ak say borom sa borom kër yooy daal bëggoo ko kon nag di ñaan yàlla nit ñi bàyyi xel ci loolu te xam ne série ba moom macha allah série moom série dàqagu ko ba ma daree siiwu série ba tey man wax dëgg yàlla dama ciy gis sama bopp bu baax ndax dafa am ay njariñ waaw. njëriñ kese la daal wax dëgg yàlla danaa den ñaan rek deuxième rek ah waaye merci. oui je veux parce que le rôle le rôle que joue euh, Marème Dia je daal parce que nee nañ ay comme ça am ay wuti rek mais ci contraire bi mu mujjee. peut loolu leçon rek pour nit mën koo téye parce que ku nekk am nga sa passé affaire yooyu noonu waaw mais en cas man daal film bi ku ma ci gën a neex moom la doon ko Jalika parce que Jalika c'est une femme battante je l'aime daal mais série bi daal ça m'intéresse et euh, nous sommes daal ravis daal d'attendre deuxième saison bi. J'espère que ça ne va je voulais vous dire que série bi neex na am na sens e man daal j'aime su ma sañoon daal pour saison 2 bi daal mu gën a gaaw parce que série bi day wane lu bari man jàng naa ci lu bari parce que imaginel nga am sa papa mu ëlbatiku di doxaan keneen mu jiki kooku di ñëw seen kër mu ji ba mu dem mu takk ko. boo dundee situation boobu affaire yooyu sa yaay di souffrir day metti moo tax xam nga loolu la rek. waaw salaamaaleykum salaamaaleykum lu xew TV maa ngi leen di ziar jaaroon naa fi def benn commentaire aussi tamit si si si ci tous les séries mais comme tey dañu sàkk ñu wax ci mu xew kii maîtresse d'un homme marié. Ah, en fait man dama dama ñëw rek tey pour kii ñaari affaire souligner ñaari affaire dama xamut ci réalisateur bi la xam ki ci ek producteur bi la quoi xamuma peut-être man réalisateur laay laay gën a ci laay ci laay gën a poussé parce que pour man dama seetlu ku mel ne Jalika en fait yow danga nga amee cancer rek mu tàmbali di dénkaane ay doomam di miiras boppam que day dee te fii Sénégal liñ gisoon mooy liñ lu ëpp si docteur yi ñu ngi lay gëmloo ne di la sensibiliser ne la man nga amee cancer di sin ba pare nga faju wér est-ce que foofu ñoom jumuñu fi beneen bi mooy cas Marème dëgg la li mu dem passem la woon tey ñëwaat na arriver ko ba yàqal ko ba yëngal néegu sëyam doonte jëkkëram moom ba léegi bëgg na ko parce que tamit mbëggeel nit ki soo ko xasee bëgg rek da nga koy bënn da nga koy bëggaale lépp lu àndal ak lépp loo xam ne ci paaseem bokk parce que yow sa si jigéen mooy su fekkee da nga ko fekk sax mu nekk koo xam ne dafay taxawaalu yow jëm ko dindi parce que góor bu nekk am nga possibilité changer benn jigéen mooy yow da ko fekk si lu bon wala da nga ko fekkoon mu mu xam mu gëm loo xam ne bokkul ak li war a doxal àddunaam comme par exemple nga nga fekk mu découragé ci góor ba nga xam ne moom dafa toog rek kalm pour dund nga ñëw fexewaat won ko loo xam ne da ko war a dugalaat ci société bi kon dañuy gis ne kon toujours rek Cheikh mi ngi déema def loolu mais beneen cas bi mooy wujj bi est-ce que moom amul am na tamit arme parce que bu fekkente ne moom def na tout lu manoon manigancé na tout lu lépp loo xam ne man manigancé na ko rek taxul Cheikh Diagne teewul moom day toujours day wane ne rek Mariam la gën a bëgg si la foo kon mu publier photo photo yi nga xam ne moom la amoon ci passeem rek moom la mën a def pour gañewaat place no parce que tamit déjà mi ngi noonu xëy na dañ danañu indil beneen deuxième saison boo xam ne Euh, dina dina dina méngoo ak liñ liñ ñu wan ci citoyen bi parce que euh, bu fekkente ne góor gi daw na dabi jabaram rek surtout que mooy liñ gis ne kon mooy deuxième saison même bu ñëwee tamit Cheikh Diagne ak ma ak ak euh, Lalla bu ñu nekkee ci kër gi tamit seen sëy man na bañ a neex parce que Marème assisté wu fa absenté na te xëy na kee kooku moom la gën a jox xolam est que kon tamit jotul jigéen ñi ñu jéem a xool beneen méthode bi ñuy xeexee budul. ay weer nit ki indi démbam te li olof naan ku ñu indil sa démb rek mën na ñaaw ah, parce que tamit pour man lu weesu weesu na daal merci beaucoup. salaamaaleykum ma ngi ziar ku baax ki maa ngi ziar bu baax waaye si jàmm waaw Fallou Diop mooy wax ak yéen Touba dëkk Yoff dëkk Yoff maa ngi ziar bu baax waaye si jàmm. mais nag euh, film bi ngeen di wax maa ngi déglu seen intervention rafet na naa mais film bi man yëpp njëriñ daa ko jàppee yëpp njëriñ la pour boo si boo ko analyser bu baax boo toogee xanaa sama xel euh, début boobu fin dama ko seetaan mais lépp njëriñ la daal man daal film bi daal lim gars yi critiqué leen rek la daal sol sexe yi ñu wane yooyu ak xañ na tëdd yeeg te yooyu yëpp. xëy na njàngale moo man mel noonu rek moo laajow rek ñu def ko rôle bi moo laajoon rek ñu def ko pour mën da dara quoi mais nag dafa am lu am solo aussi am diggante ànd ak ànd xarito laal man diggante boobu laa ñu ak xarito marim xarit daal man ñoo ma boobu def na ma kaa seen xale bi ñu leen di jàng dañ xelal lu baax wala demee noonu xale do xale sax mën nga ne mère bi sonal quoi mère bi moo koy tegtal si di waxaloo mais xaritu mare moom mooy loolu bëgg na mare mais yooyu muy def yooyu yëpp du sagoom quoi xañ na mais yem na ma daal diggante Jalika nga indiwaat Jalika ak xaritam boobu dem sëy ak Birame man daal théâtre bi daal lépp lépp yem na ma daal mais nag lépp ak jàngale la wax dëgg yàlla yàlla nañu yàlla doole trop. yaar naa leen bëgg naa leen namm naa leen nag ay namm yu bëree bëri yéen a ngi si jàmm ah xaw seddati na macha allah ñeen bi moom moo fi des. neex na chanson bi nim tëjee am na sens ba pare bàyyee ngeen nit ñi daal loo xamante ni nii su fekkente ni war nañu mën a yeewu dinañ ci jàngat lu bari yeewu ci ndax àdduna lool rekk moo fi nekk waaw gis du lay yee nga yeewoo si wala nga nelaw rekk ba faaw mais instant bi moom macha allah ñu ngi def buzz di def lu neex di yee nit ñi tamit di yee nit ñi di leen delloosi waaw ndax biram instant bi lu mu doon def rek réccu na ko mooy dellu si waaw ci robon moom koy réccu di dellu mareem aussi yërëm naa ko torop moom tamit kaawam yërëm naa ko lool dëgg yàlla ndax jël na décision sëy am na fulla instant bi taxawaaluwul lu nekkoon ci moom daal xam naa ni mbub boobu moom summi na ko jël mbubu bu baax bi mu sol ko mais nit ñi nag ñoo ko ci bàyyiwut nit ñi bàyyiwuñ ko ci Lalla ci jàppale jàppalewu ko ci benn côté waaw ndax wujjee jërul yenn yi yàqante yàqante di xool lu ñaaw ci nit ki waaw di koy yàq amul amul njariñ waaw li nga xam si nit ki ba di ko wax amaana nit xam na si lu ko raw teeku waaw kon nag jërul yenn yi àdduna wi jërul yenn surtout ma jëkkër bokk jëkkër rek jërul yenn yi dafa war a rafet waaw lalla dafa waroon lal basang gi yaatal waaw taal di mu yaatu ñu xàppi moom marim dund seen dund bañ a xajal kenn duñu wut xarit duñu dara xarit bu ñëw soo mënee bokk ci bége bi bokk soo mënul bokk nga bañu ñun ñu bége suñ bége waaw defa su toppatoo suñ jëkkër di def lu war mais lan la weere nga weere nga àdduna bu jeex bi lu fi jar yàqante ak weerante wujje da koo jar balaa ëllëg mu jeex ngeen koy nettalante te du fay ba seeni doom wala seen sët am na yoo xam ne ñaaw na ci jullit rek moroom ja nga di ko def sa moroomu jullit bu doon daf koo continuer di ko def sax am nga ci droit mais koo xamante ne dafa teg yoon woomu awoon teg yoonu baax danga ko ci war a jàppale waaw danga ko ci war a jàppale man gis naa sama xarit boo xamante ni nii xaritam kooku xaritam ki doon génnal naan rek la doon def yaay ji dóor na ko ci def ko ci lu ne mu ba ko mu ne ko duma ko ba parce que su ma ko babee day gën a bon te man lii mu nekk mën naa ko cee génne te wax na dëgg dafa dem ba génne ko ci loolu fi ni toll nii macha allah nga ko gis bëgg ko mu nekk ci këram mu seere àdduna bi moom suturalante rek moo fi nekk lu amul sutura lu ne sax jëru dugg muy góor gi muy jigéen ji ñëpp war a am sutura jigéen dafa war a am sutura ci lépp sa jëkkër sa doom sa dëkkandoo lu man di doon da nga war a am sutura mais da ngay gis kuy xuloo nit ki sax waxal ko ba waxal ko lu mu xamul ci moom pour lan rek bëgg koo yàq rek naa yàq àddunaam rek moom wax boobu heure bu dee ci yow nga bëgg a dee wala nga bëgg a génn dëkk boobu ñii naan dëgg na ñii du dëgg ñi la ko xoole ñi di lool ëpp na waay waaw rakki timit kaawam moomit mooy loolu jaraano moom instant moom daa mel rey na baakari ndax baakari moom bu déewu timit sonn baakari moom lim leble rek lañ ko fay waaw ndax moom dara lu baax leblewu soxor gi mu wax rakki lépp a ngi ci moom kontaan nañ daal kontaan nañ jigéen di def neex na dugg ngeen ci biir kër yi am na solo torop ñun niñ mënul jooy tudd ko wax ko yéene ngi ñu koy waxal ñuy toog ak suñu jëkkër ak suñuy doom wala ay suñuy njëkki ak suñuy goro ñu koy seetaan ñu xam lan mooy àdduna xam lan lañ war a dundee jërë ngeen jëf yàlla na sosoo dee bi ñëw ci jàmm ñu bokk ko ci jàmm kom ni bi jeexee seetaan ko moom jeex ci jàmm ngeen gën di dem di dem di dem nu ngeen dem rek doyut ñu gën a yee ci àdduna nekk leen ci jàmm sant naa leen gërëm naa leen jërë ngeen jëf salaamaaleykum salaamaaleykum lu xew tv man la faati ama madame Bousso maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di rafetlu bu baax a baax nag émission bi nga xam ne moom maîtresse d'un homme marié kontaan nañ ci parce que permettre na sénégalais yi xam lu baree baree bari waaw surtout jigéen ñi nga xam ne dañuy sëy wujjey fii vraiment jàngat nañ ci lu baree bari man daal sama analyse moom euh, maa ngi koy rafetlu bu baax a baax di kontaan na ci ñëpp bàyyi xel nekk na nag série boo xam ne lu am solo la dinañu permettre sénégalais yu bari ak sénégalais yu bari yeewu ci surtout ñi nga xam ne dañu wujje am na solo waaw am na solo trop